fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre atum 1979 euh, bokk na ci euh, yenn xew-xew prix Nobel de la paix ñu jagleel ko mère euh, Teresa de Calcutta loolu la ñuy fàttaliku ak yeneen mbir yu xew 17 octobre at yu wute ñu dellu si. fukki fan ak ñaar ci weeru octobre xale bu jigéen bi nga xam ni mu ngi tudd ay Aïcha Diallo am fukkaat ak ñaar moom nag amoon hémorragie ñàkk na bakkanam ci hôpital bu Pikine ndax prise en charge ba waroon kon amul loolee tax ba kilifa yi nekk ci ministère de la santé et de l'action sociale ne kon bëgg nañu daal mbir mi leer noone ci suba si ñu convoqué directeur hôpital bi ngir déglu ko ci dossier bi. fukk fan ak juróom-ñaar ci weer octobre atum 2002 ci njàppandalu président Abdoulaye Wade ministre des affaires étrangères du Cheikh Tidiane Gadio moom nag am na ab xaatim déggoo gu mu am ci diggante force loyaliste ak mutin ivoirien yi li nag jëm kon ci ñu teg ngànnaay ci suuf doon waxtaan goo xam ni séq na ko ak ñoom lu ëpp waxtu ak kon lu tegal ko fan ak juróom-ñaar ci weer octobre atum 2016 gannaaw fukkaat ak juróom-ñeent ci carrière am Yaxya Diop Yékini doomu baasul bi xamle kon ni moom noppi na ci làmb mu doon ab retraite goo xam ni nag jël na ko gannaaw ba mu ñàkkee ab laale ci diggante Lac 2 ci saison bi ñu génn. fokk fan ak juróom-ñaar ci weer octobre atum 2019 ca euh, Liban foofe nag am kon ab mouvement goo xam door na fa askan wa di jug ci ay ay bés lépp rek ngir kon ñaawlu doxalin nga nga xam ne ni moom la ñu nemeeku ca nguur ga classe politique bi ñu jàpp ni kon ñoom dañ faa war a jugee ndax lépp rek jëm na ci li ñuy dugg jëm ci wuruj ak guerre fukk fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre atum 1997 gannaaw ba mu génnee àdduna moom Che Guevara ak juróom-benn ci ay àndandoom euh, transféré nañ nag seen i euh, cendre euh, ci kon mausolée ba nekk ca Santa Clara ca Cuba. ñu taxaw ci fukk fan juróom ñaar ci weer octobre atum 1979 ndax si la mère Teresa am prix Nobel de la paix abbé Alphonse Seck di delsi ci dundu ak jaar-jaaru soxna si. soor gu ràññeeku ci lu jëm ci wàllu dimbali miskin yi ak néew ji doole yi Maître mu ngi gane ci àdduna si le 26 août 1910 fële ca albani ñu xam ci moom ku takku woon ci way waajuram ngir sukkali li di dundinu doomu aadama rawatina di jàppale miskin yi te di leen di dimbali ngir seen dund mën a gën a oyof seen dund gën a mën a méngoo ak euh, bëgge-bëgge wu àddina si le Mère jigéen la woon catholique bu jébal boppam yàlla nekk ñu euh, ñoo tuddee sœur nekkoon nag di jàngale ci école yoo xam ne euh, maanaam doomu ñi nga xam ne am nañu maanaam les les enfants de riches ñoo doon dem ci école boobu waaye sœur bi nga xam ne Inde la nekkoon gis na coono bi nga xam ne moom la waa dëkk bi nekkee woon euh, te jàpp na ne euh, ku di jaamu Yeesu Krista ci nit ñi nga koy jaamu rawatina nag ci jëriñ ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole ci ci société bi. mais Teresa ci nitaalam sax boo leen ko seetloo di ngeen gis ne euh, dafa di ko xamante ni ku suufalu la woon colin gi nga xamante ne moom lay sol gannaaw ba mu euh, sosee congrégation ñi ngi oowee <clears throat> ñuy ñuy duppee ñuy jàppale ci yërmande ak ci coofelu yàlla maanaam doomu yërmande gi doomu coofel gi fii de la charité gannaaw ba mu ko sosee Mère Teresa jublu na fële ca Calcutta ca Inde ngir gën a mën a jàppale ñi nekkoon ci jafe-jafe yu métti. loolu mu def ko Inde ay atiyaat ba ba sax ci li mu tàmbale moom ci boppam mu am ñeneen ñu ko fekk si te loolu moo indi njaboot ji ñoo tuddee le missionnaire de la charité. Euh, ñi nga xamante ne moo nekkoon mbootaayam bu bees gi ci ay wàllu sóor ngir ñu jàppale rawatina ñi nga xamante ne ñu ngi ci dugg diggante dund ak dee. looloo waral le 17 octobre 1979 ñu takkal ko boog raaya gi nga xamante ni moom la ñuy ooy prix Nobel de la paix. alors soo gisee ñu jox ko prix Nobel de la paix ñun dañoo jàpp ne euh, jàmm du rekk bañ a xeex maanaam li ñoo tuddee ci tubaab absence de guerre jàmm bokk na ci euh, may ki nga xam ne dafa xiif mu lekk ki nga xam ne dafa mar mu naan ki nga xam ne dafa feebar mu mën a mu mën faju mu am ay kàddu yu am solo yu mu fi bàyyee nag maanaam ci ndimbal bu ñu xeeb dara. ndaxte dafa mel ni ab toq bu daanu ci digg géej bi waaye toq boobu bu daanu woon ci digg géej bi kon su boobaa ah dina manqué géej bi su boobaa dina doon lu bokkul ci géej gi. The greatest destroyer of peace today is the cry of the innocent unborn child. merci beaucoup ci fàttali bi mère euh, Teresa Alhaji euh, Malick euh, dem nañu ba maa ngi doon wax sànq dañuy jéggi ay frontières ay époque dem nañ ba kuy def ay acte caritatif ak yooyu kuy dimbali nit dañ la naan mère Teresa moom elle est décédée en 1997 mu doon liggéeyal bu baax a baax ñu ndóol ñi rawatina xale yi ñi nga xam ne dañ leen di bedd ci société bi am yenn jàngoro yoo xam ne ku ko xam-xam ne dañ lay bedd waaye moom yooyu yëpp da koo tegee woon de côté di taxaw nit Euh, dafa am wayu nga xam ni moom dootul fay ci àdduna mm-hmm. ndax boo baaxee sax di dimbali ay néew ji doole ñu ni la mère Teresa mm-hmm. donc loolu dafay wone rek ni euh, taxawaay bu am solo la amoon ci euh, ñi nga xam ne tey dañu ñàkk ak ñi nga xam ne dañuy xiif wala ñu marta amuñu ku leen jàppale wala ñi feebar te mënuñu faju donc moom pratiquement ci loolu la doon dox euh, subaak ngoon guddeeg bëccëg euh, mu nekk lu nga xam ne tey ràññee nañ ko ci moom ba mujj ñu jox ko prix Nobel de la paix euh, ràññee googu sax balaa prix Nobel de la paix bi le pape Jean Paul II moom moo ko njëkk ràññee ci biir jàngu bi ba nga xam ne daf ko béatifié le 19 octobre 2003 ñu canoniser ko loolu le pape euh, euh François en 2016. loolu wane ni eh, jàngu bi d' abord église bi ñoom ñoo njëkk a reconnaître que ne euh, mère Teresa ku ñu war a euh, wane la comme exemple ci taxawu nit ku nga xam ne dafa néew doole en tout cas nit la bu nga xam ne royuwaay la ci képp kuy doomu aadama. parce que yàlla dafa bëgg nit bu nekkee ci jafe-jafe nga jàppale ko dafa bëgg solidarité ci diggante nit ak ak ak moroomam. nga nga nga yor sa astuut gis ku yorul dara nga bokk ko ak moom mm. dafa am solo mm. euh, nga dëkk ak nit mu wóor la ni tey bu añee du reer yow nga am ba wàññi denc nga ñëw jàppale ko loolu dafa am solo mm. donc loolu lu ñu war a cultiver la ci religion révélée yëpp dañu jàpp ni dimbali doomu aadama ku lu war la te mère Teresa ci la nekkoon c'est ça Chérif euh, ginnaaw prix Nobel de la paix bi 19 ans après la ko église catholique bi euh, canonisé maanaam ñu élevé ko au de sainte maanaam mu nekk sainte ndax yi nga xam ne moom la doon def toi moom day soxna su sell moo doon wax mm. naan ce qui compte c'est pas ce qu'on donne mais l'amour avec lequel on donne mu mm. nga nekkoon yëwan ngeeg laabil gi mm. nekkoon ci moom ba nga xamante ni képp yàlla def ni sa loxo jotul sa ginnaaw wala ngóndóol wala société bi beddi la moom dana def kémtulaay kàttanam ba man laa dugalaat mm-hmm. ci ndimbal nga xamante ni daana ko joxe nag boole ceeg générosité bu mag a mag te gis nañ même ci église bi di ko wéyal ah, boo xoolee waa Caritas mm-hmm. ñu nuyu sax ñoom abbé mm-hmm. mi nga xamante ni ci indi ay yu am solo encore une fois di taxawu ñi nga xamante euh, ko waxee euh, mm. loolu donc ñi nga xamante ni dañoo am jafe-jafe wala mënuñu am lekk donc ku leen di dimbale te gis nañ quand même maire nga xamante ni mooy maire Teresa de Calcutta moom parce que même Calcutta dëkk boobu moom moo gën a jox boobu identité mm. fële ca Inde parce que bu ne Calcutta rek xel day dem ci euh, maire Teresa dèjà donc mu nga xamante gis nga koo xam te yaa nga juddoo daanaka ca Albanie jamono URSS yu mm. njëkk ya nga ñëw quand même ba Inde googu xam def fa jëf ju mag ji ah, donc loolu wayu la woo xamante du fay ndax kam acte bi dafa rëy mm. doolu si tuuti rek naa da xam mm. naan waxtu bi xat na waaye c'est important de signaler aussi que bu ñu demee tey bay euh, amal journée euh, mondiale bu charité euh, moom moo ko waral. Hmm. parce que boo xoolee Nations Unies dafa jël atum 2013. Hmm. date anniversaire disparition. mu ne désormais chaque dañuy màggal ci àdduna wërngël képp. Hmm. œuvre caritative comme ni nga ko waxee léegi. d'accord moom loo xamante ne lu am solo la. c'est important merci beaucoup ibu euh, dañuy desandi ak yow léegi léegi Ibou ñu jàll ci xibaar yi ñu tënk ko.